Siwdu jàmmi boom maa ci xam dara dañu koo nangu comme ni def xal comme ni def Ousmane Sonko voilà dañu koo fokati Khalifa Sall a été élu ci liste dañu ko téye ba pare dox ko dindi mu nekk ci biir kaso bi dañu koo waroon a mhm. mu ñëw jël otoom jël bandoom toog siège ñu doog a woote mhm. lever son immunité parlementaire fii jaay doole moo fi am ci moom lañ ko fi jaarale parce que une majorité mécanique mécanisée hein mécanicanisée bu bu ñëwaatee ci mbirum Sonko. Euh, dañu fi waxoon ne <laughs> dañu fi waxoon ne euh, yow da nga defoon déclaration justement wax ne jàppale bi nga xamante ni ak détermination bi askan wi am mm, force bon pour ne pas dire force de la nation muy ñu ne ci kujje gi yu ñu am ci ginnaaw Ousmane Sonko bu ñu ko amoon à l'époque ci Khalifa Sall wala ci euh, Karim Wade xëy na mbir mbir maanaam mbir bañ leen teg du daal di. très grande question. voilà <laughs> mbir bañ leen teg du du du du yegg si fii alors. Ah, jour bés bi nga koy wax lan nga yëg ba wax ne détermination bi ñëpp am ci ginnaaw Ousmane Sonko bu ñu ko amoon ca xëy na euh, mbir mi du toll fi parce que tout simplement ñun bi ñuy jàpp Karim Khalifa Sall mi ngi àndoon ak Macky Sall dafa jël declaration ni laissez la justice faire son travail mm-hmm. yaa ngi may dégg bu baax Ousmane Sonko l'autre côté xëy mi ngi doog a dugg ci landerneau politique bi fuggu jeunesse japp ko mu ne je pense tout simplement à moi yaa ngi dégg li ma la wax parce que yéen yéen a koy wax yéen a ngi dégg déclaration yi am na fu mu waxee ci benn déclaration monsieur monsieur Karim Wade m'a appelé depuis le Qatar mais j'ai j'ai j'ai pas tenu nécessaire de prendre son appel ça c'est Ousmane Sonko qui l'avait dit mm-hmm. man j'appelle le chat par le chat le souris par le souris tey ñu jël suñu xeex ñun waa PDS xeex ko ñun kese gis nga place de l'Obélisque bii tàmm na suñuy 1 million de personnes par mercredi wala par jeudi wala par vendredi wala par samedi selon le jour qui nous convient ñu teg ko fi teg ko ci teg ko ci teg ko ci gisuñu benn opposition bu ñëw jàppale keroog bu ñuy lever immunité parlementaire u Khalifa Sall xam nga man dama am lii ma takk nii ñaari jaaro la ñaari jaaro yi dama am habitude du ko takk damay d'or, ci taabal ji di d'or, di dóor di dóor ba ñaari jaar yëpp yol dem gisatuma leen benn bi benn perlu jamaa moo ci nekkoon chevalier bu mel nii la bu kaare mais ba muy xew ci xalifa ba tey sénégalais yi conscient ñu woon ni waa ji il est en stade ou en voie d'élimination de ses adversaires politiques mais bi mu egsee nag ci Ousmane Sonko 1, 2, 3, 4, 5 personnes. mais qu'est-ce qui se passe Il faut une mouvance très serrée pour combattre cela. Je ne sais pas si tu Donc, ils sont combien à Moulin comme soutien ou non, parce que c'est normal. Parce que Bobo, le ras-le-bol des Sénégalais aussi, qui liquidation de ses adversaires politiques, comprendre uñ ko woon mhm. moom man fofu la waxe bi may def intervention bob. Mhm. Mhm. bañ ko comprendre boog ak ceeb bu diw diwlin ju manki covid jàppunu xalé yi xif mag ñi xif ak tañu bi ñu tej ñu ne xaar leen ñu génnee suñu bop xam nga dem na Touba kéro tok di waxtaan ba yàgg kenn daan ni xawma lu mu def xawma lu koku jël balade mu ne ko sonko da koy téré de <laughs> ma ko waa yow luy sonko da koy téré mu ne waaw gis nga Macky bi ko Sonko ne baal nit ñi nga tëj dañoo tëddi tijji la ñu def ba neex ñu nii dañu taxawaal te ñun ñi dóor nañu ci Touba gi te Touba kenn fi wax amul complot euh, dafa am complot mais dañu fi gis ma Mbaye Niang bu toog fii wax ak ñi nga xam ne ñoo far ci nguur gi wax ne musul am complot et mbir mi eh, eh, mbiru mbiru yoon la euh, dem na sax ba indi coow seen diggante ndax dégg nañu Maodo Malick mbay euh, kaddu yoo xam ne Mame Mbaye Niang yëkkati na ko ci mu indi ay problème ci seen diggante que ne le président dafa wéet ci combat bi bi mu ñëwee parce que moom kese moo taxaw jàkkaarloo ak Sénégal ban jàngat nga am ci loolu noonu waa dëgg la bu ko neexee moom moom na lijjanti see vingt 94 milliards ba pare doo a wax naan. kan Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang doog a wax ne sama xarit la nag <laughs> xam nga mais dama koy dóor xeer. parce que li mu wax barki démb lu garaaw la. Hmm. moom fu mu nekkoon moom tamit di xale yi di génn ci réseaux sociaux yi il était où lui moom bu dégg ngeen ñu ne bokk na ci ñi nga xam ni da doon fexe rejoindre Sonko. bu pensez que ça waaye loolu weddi ko bi mu toogee fii ah, moom xam nga weddi dafa yomb man damay live ba mu yàgg ma ne ndeysaan xool leen ñii di yuuxu yëpp defoon nañ pacte d'allégeance ci Sonko man mën naa ko confirmer hmm? ah waaw ñan la ñooñu ah du ma lu ma ciy wax bi ma ko ci rajo bi yeggaleel bi ma ci live bi am na ku ma ni maire waxaatal li nga waxoon ma ni waaw ah yëngu-yëngal bee leen tiital. non du yëngu-yëngal bi loolu jiitu na loolu. Ah. maa ngi fi bu ma fàtte ji jiitu na loolu ñun danoo gore danoo toog assemblée national bokk ci suñuy parti gore. Mhm. mais am na ñoo xamante ne dañ doon dem di gis Ousmane Sonko ci suuf. mais mais Mame Mbaye Niang mu weddi na loolu li mu wax aussi lan lan nga ci yàggale. maa la wax lii man man femme ay député. di ko gis ay député Macky Sall yoo xam ni dañ doon def pacte d'élégance ci Ousmane Sonko. depuis l'Assemblée nationale avant lii di lëkkaloog moom di wutanteeg moom ay xarit. mais loolu lañ ci jublu di laaj ay numéro ah jublu nañ ci xam nañ ni xëy na peut-être jàppoon nañ ni euh, Ousmane Sonko était en bonne position bu bu yi di ñëw mën naa am bu mu bu mu leen fàtte. wala ñu xaritoo bu ëllëgee bu ñu bëggee ñoom xamante ne a génn dama lay wax rek xam nga man xam nga man li ma lay wax ci am nañu intérêt dem di nekk ak Ousmane Sonko wala di signer un pacte d'allégeance li ma lay wax Macky Sall su bëggee ku ko conseillé dëggantaan njaay na xoolaat son entourage boole ci ay xale yu am jom yoo xam ni fa ñu dëkk mën nañ faa tekki dara mën nañ faa def dara mën nañoo composer xale yi muy ñu góor ak ñu jigéen

bokk ci xeex bi toj agent sànni xeer. mais li nga wax ni li nga wax ni dafa grave de honorable waxoo euh, mais ñoom xam nga accusé ay eh, apériste eh, que ne eh, ñoom. accusé ay apériste mais mais wuy accusé ay apériste que ne ñoom. mais wuy ñoo ngi doon sànni xeer ñi ngi doon toj agent ça c'est grave quand même. mais ñoom ñoo la ko gën a xam. mais ñooñu xanaa duñu ay ñooñu ay responsable dafa ndànk dama lay wax su fekkee tey da nga jël ay moyens jox ko Fatou Abdou Ndiaye nommé ko DG wala nga nommé ko ministre mu nekk ci quartier bi ñoom Mouhamed ni amuñu 25 ans ñoo xéxalon Fatou Abdou ndjay bam nek DG Fatou Abdou ndjay 4 4 bu bees tàq leen def mbubb alima allumé def boppam bu rafet di fayee ko 25 millions ñu jox ko 10 millions abima mu faté xalé yi yi ko doon xeexal du len wutal liggé xalé yi bëggé woné sen mère seen mer. donc du ay responsable. ay ay militants la ma ne. Mhm. xam nga fi gisoo fi responsable bu gën di xéx ah, dañuy yablé dañuy yablé <laughs> dama ne président Macky Sall bu bëggee ñu wax ko recruter yi doon recruter ñi doon recruter responsable yi doon recruter pour xale yi génn ci mbedd mi bokk ci xeex bi am na. boo ko xamee ñan la. lu tax ma la koy wax jaru ko xam nga lu tax su journaliste dana wax suuf sam ah yow Fatou Abdou li nga bëgg yombul trop ba mel ni galaas. te xamul ne maman nag la temps yi de sunu conseil. damaa am sama carte presse de moo ñu fa teewal moo ñu doon defal live yi noonu dama am ka xam nga ma nuyu sama collègue Aïssatou Sabara au passage nuyu sama collègue Yaay Albis au passage ci xam dara lu yow